carte production trois millions cinq cent waaye nag ñu am final bi nga xam ne moom la ñu war a bëre léegi waaw balaa ñuy dugg ci final bi day faatu dañ may may loo xam ne amateur yi dafa am lu ñuy wax ndax dañoo dugg ci weeru koor gi te gisante mbayang luum jël panier boo xam ne da ci des sukkaru kooram dem seeti kii nga xam ne mooy day faatu Adama Diané kon loolu mu dellu ñu rafetlu loolu ñuy jërëjëfal mayam lu waaye di kontaan ci les votes Adama Dialli kon ñoo ko jàng kon ñu dugg ci final bi ak les votes Adama Dialli alors merci beaucoup ñoom final seen salaire yéen a ma fële les finales mooy Ibou Ndiaye Amafa Ibou Ndiaye Amafa